ginaaw bi ñuy ñaanalee sunu camarade Ousmane Tanor Dieng ak Doudou Issa Niass yàlla na leen yàlla may ñu xare àjjana yàlla na leen yàlla xare àjjana te seen njaboot mu teg ci ndeyjooram te yaakaar naa ni ñooñu ñaar seeni njaboot ñi ci jiitu seen avant seen njaboot gi nga xam ne moom la ñu jural seen bopp seen njaboot politique la woon ak seen njaboot syndical kon ñooñu bu ñu jógee ci ñun booba ak léegi mënuñu woon a daje parce que naqar bi feesoon na ñun ñëpp suñu biir xol loolu moo taxoon ñu ni nañu toog ba beneen jëmmi jamono ñu doog a dajaloowaat pour xool nan la ñuy taxawoo Ousmane Tanor Dieng ci wàllu lu ñu ko war a defal maanaam tey ci réunion bi dinañ ci waxtaan tout à l'heure rendre ko hommage parce que Ousmane Tanor dafa nekk vraiment une particularité pour le parti socialiste mu liggéey fi tamit loo nga xam ni kenn mënatu koo fay ci kaw àddina waaye nag li ñu ko mën a faye mooy ñu ànd nekk benn liggéey li nga xam ne bàyyi woon na ko fi fa mu toog mu ñuy seen ni que ñii kat ngor ga ma leen bàyyee loon taxawu ba ma leen bàyyee loon pour le parti socialiste ña nga ca ba léegi loolu moo tax ñu ni woon tey ñu daje pour waxtaan ginnaaw bi ñu leen ñaanalee ñu delluwaat ci suñu programme politique delluwaat ci li nga xam ne moom la war a def mais sunu première activité bi nga xam ne ñun moom la ñu bëgg def tey mooy nan la ñuy rendre hommage Ousmane Tanor Dieng ginnaaw bi nga xamante ni réew mi ak àddina bi yépp rendre nañu hommage Ousmane Tanor Dieng euh, ni nga xam ne noonu la ko président de la république taxawoo ni nga xam ne noonu la ko gouvernement bi assemblée nationale ak kuréel yi nga xam ne ci la nekkoon muy le haut conseil des collectivités territoriales conseil économique et social donc institution de la république yépp taxawu nañu Ousmane am na sax loo nga xam ne léegi dama ko tëb ci sama biir discours mais bu ñu ko bëggoon a réserver ci hommage bi ñu koy rendre mooy ci diggante bi li muy gàtt gàtt son excellence le président de la république jël na les sphères ministérielles yi ñu jëkk a tabax mu nekk agriculture élevage ak pêche jox ko turu sunu camarade Ousmane Tanor Dieng ma yaakaar nag loolu initiative bu rafet la boo nga xam ne ñun ñi ñëpp dinañu ko fàttaliku ilaa yow mi diini parce que turu Ousmane Tanor Dieng dootul fay ñuy remercier tamit tous les partis politiques ak coalition de partis politiques parce que amul kenn koo nga xam ni yaa ngi yor couleur ci biir réew mi te dikkuloo fekk ñu ca kër Ousmane Tanor Dieng nga jaale ñu ko kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di sant Sénégal yépp de toutes les régions nag du Sénégal ci këru diine yi ci këru aada yi ak kër gu mu mën a doon rek dikk nga wan wan ñu ni am ngeen naqar ci dem bi Ousmane Tanor Dieng dem te am na tamit kóllëre goo nga xam ni amoon ngeen ko ak Ousmane Tanor Dieng kon mbokk yi loolu laa amoon loo nga xam ne dama ko bëggoon a wax am na ay situation politique yu bare bare bare yoo nga xam ne am na fi mun nañ ciy cité tey le dialogue national bu ñu seetee sax le volet politique pratiquement avancé nañ ci bu baax a baax a baax bu ñu xoolee tamit li nga xam ne bërki démb rek mooy dégel bi nga xam ne dafa am diggante parti politique yi diggante la président de la république ak le président Ablaye Wade libération wax Khalifa également ak yeneen ak yeneen yoo nga xam ne mi ngi nekk ci suñu kanam yaakaar naa ne loolu lépp war nañu ko jàngat am ci ay leçons yoo nga xam ne du ko ciy tiire mais surtout daal ñu xam ni que tey Ousmane Tanor Dieng nekkatu fi nañu ko ñaanal fa mu nekk yàlla na ko yaxam sedd bu baax a baax mais li ñu ko mën a feye daal li ci gën mooy ñun ñëpp ñu ubbeeku joxante loxo ànd ànd gor ànd àndu nawle bu ko defee Ousmane Tanor dina kontaan mais ñi nga xam ne tamit ñoo ñu jiital ci seen kanam te du ñu ñëw ree réunion seen du ñu ñëw ree réunion bureau politique du ñu ñëw réunion commité central congrès sax du ñu ci ñëw te muy la majorité d'entre nous ñooñu tamit war nañu leen a sàmm war nañu leen a sédd ci décision boo nga xam ne du ñu koy jël loolu laa amoon loo nga xam ne dama ko bëggoon a wax ci wolof pour moo introduction di leen ñaan rek bu ñu paree suñu ordre du jour ba pare dinañu leen wax yéen waa presse ngeen dekkul dellu si comme ça leen jébbal li nga xam ne moom la ñu jëlee ci réunion maa ngi leen di gërëm di leen sant